كل بسارا له ردا دون سخط سرسارا لو سنا وارد وان بلا شقات مسخاد لي من بني ديمان سارا لله كل لله الأبار مغرمات من هرت على النوافي هاجم من سارا إن الذين إلى سرسار خار خسادو شيارة فرخو daarayni aw saara mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bi nu jëlee ndigal ci sëriñ Mountakha Mbacké xalif général de murit yàlla na fi yàgg te wér kilifa yaa ngi ni toot ngeen xoolee jataay bi xam ni dëgmal nañu bis bu rëy bis bu mag di bis boo xamee ni baaxoon nañ koo amee fii ci saam goog sëriñ Abdou Latif ki koy amal mooy kan sëriñ Moustapha Guèye di sëtub sëriñ alxaaji Mabey Guèye mi nga xamee ni xam nañu taxawaayam ci alquran xamoon taxawaayam ci képpaaru seexu naa si Ahmadou Bamba xaadimu rasul moo jógoon fii dem gànnaar sëriñ Touba ñaanal ko tibbal ko mu dellu siwaat mu yebal ko ngaaj mu taal fa taalub jàng boo xam ni dootul fay ba mukk loola waral nag sëriñ Moustapha Guèye fas yéenee amal bisub cant ak di ko ci fàttaliku di ko ci ñaanal ak ki nga xam ne mooy sëriñ Modou Assa Badiane di maamam kañ lay doon fukki fan ci weeru baraxlu wi fan lay amee. fii ci saamuk sëriñ Abdou Latif Mbacké bis boobu nag ngir waajal ko looloo waral jataay baa ngi nii. mbakk jullit yi mbakk taalibe yi ñoo leen di bu baax te di leen siyaara ginnaaw ndigalal sëriñ bi ñoo ngi jotee digal ji sëñ Pape mi nga xam ni mooy jëwriñ ni taalibe yi waa kër sëñ bépp ñoo ngi leen di soññi ci liggéey bi nga xam ne si ne moom lañ dëgmal muy bis bi nga xam ne sëriñ bi amul dul moom. sëriñ Pape Faye wax ni mboolem taalibe yi aj ci waa kër ah, taalibe yi aji ci kër sëñ bi yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi ak ci bitim réew ak taalibe bi fu mën a nekk suñ Pape Faye ne mi ngi lay soññ bu baax di soññi waa daayira soppe Seydina Mohamed yëpp yi nga xam ne ñoo nekk ñoo nekk fii ci réew mi sëriñ Pape Faye ne mi ngi leen di soññ bu baax bu bis baa ñun ñëpp ñu maasi teew nañ ko daa def teewee bu ko defee it ñu ngi sëñ bi nee mi ngi sant soxna Mariam Siis mi nga xam ne mooy njiital waa koñ bi jël liggéey bépp teg ko ci loxoom. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñi ngi leen di nuyu ci turu Serigne Modou Mamoun Bousso imam ci bis bu am solo bi nga xam ne Serigne Moustapha Guèye ma Ilaaji Amsatou Guèye daf ko ko tudde fii ci Touba Sam ci dend ak jumaay Afrique du Sud ji Serigne Modou Mamoun Bousso nag nee na mi ngi ko yëgal. mbooleem njabootu sëriñ Touba yëpp mboolem seex yi sëriñ Touba yi di ko yëgal nag mbooleem njabootu sëriñ Mbacke Bousso gépp képp koo xam ne aju nga ci sëriñ Mbacke Bousso ak noo ci ajoo sëriñ Mamoun Bousso nee na mi ngi lay yëgal bis boobu di ko yëgal mboolem fédération yi nga xam ne ñoo aju ci jumaa ji nga xam ne moom lañ ko teg ci loxo mu jumaa Afrique Sud mboolem fa ab nekk ab xarit nekk fa wëlëre nekk fa sëriñ Mamoun Bousso nee na amulul bis bi nga xam ne sëriñ Moustapha Gueye daf ko tudde fii ci Touba Sam nee mi ngi koy yëgal ñëpp te di ci séntu ñëpp te di ci ànd ak ñëpp oh. gannaaw ba ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñuy sant sëriñ Touba bu baax di ñaanal Serigne si Ahmadul euh, euh, Muntaxa Mbàkke suñu borom gën a guddal aw fanam te wéral ay cëram waaye gannaaw loolu itam ñuy nuyu mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci gétaay bi yow commencé Serigne Moustapha mi nga xam ne moo waral bis bi ñu yëkkat suñuy kàddu nag ki turu Serigne Sidina Omar Gom xalifaab Serigne Abdou Salaam Gom waaye ki turu Seydina Omar Gom ñu Salaam Gom sëriñ bi wax na ne moo ngi woo góor ak jigéen mag ak ndaw ci bis bi nga xam ne sëriñ Moustapha daf ko yëkkati dara jaale ko ko moo ngi ciy woo mboolem ñi nga xam ne ñoo aju ci kër sëriñ Abdou Salaam gépp di yëkkat di di ko yëgalaat mboolem ñi nga xam ne ñooy njabootu sëriñ Abdou Salaam ak mboolem taalibe yi nga xam ne ñoo aju ci buntu kër sëriñ Abdou Salaam sëriñ bi wax na ne amul lu may bis bii. amul lu may Serigne Moustapha Serigne Moustapha it amul lu may bis bii moo ngi soñu góor ci soñu jigéen ci soñu mag ci soñu ci soñu ndaw képp ko ke yàlla na ak Serigne Touba fekk sa aaju ci barke Cheikh Abdou Salaam. barke Xaadimu Mustafaa bokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ngi nuyu mboolem bokki jullit yu góor ak yu jigéen yi dégg sunu kàddu yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di yëkkati sunu kàddu ci ndigal ak kilifteefu sunu sëriñ sunu wayjur alxaaji sëriñ Mbàkke Géey mi nga xam ne moo toog toogaayu sëriñ Mabéye jox ndigal Serigne Moustapha ngir mu yëkkati bis bi taxawal ko ngir dundal lislaam ngir dundal alquran ngir dundal sunna waaye ngir fàttali ko ci itam way jur yu baax ya muy sëriñ Mabey Guèye radiallahu taala anhu ak sëriñ Mor Astu Badiane radiallahu taala anhu muy bis boo xam ne da koo baaxal di ama di baaxoo di amal at mu nekk ci ndigalul kilifa gi di ko àndal mbooleem mbokk yi nga xamante ne bii ñoom la bokkal sëriñ Touba mbooleem mbokki julli yi waaye rawatina ñi nga xam ne ñoom la bokkal sëriñ Mabey muy sillat rahim bi nga xam ne daayira bu lëkkale la set sëriñ maa bi yëpp sëriñ Moustapha wax ne mi ngi ànd ak mbooleem bokki boppam yi mbooleem bokki taalibe yi mbooleem jullit yi di woote bisul islam bi di ci woo mbooleem kilifa diine yi di ci woo mbooleem jàngalekati alquran yi di ci mo woo jangale kete kati jang kete xasida yi di ci wo itam mboolem kep ko xam l'islam ñor na la mo xam nga ni ci bir leen wala ci bitim rew mu ngi koy soññ diko fatale rawati na ñi nga xam ñom la bokkal daru khudus ah, ci ndigal ak fu alhaji serigne bakki géey mi nga xam mo moo jiite cheikh seex yi aju daaru xudóos wax ne mi ngi leen ci wo di leen ci di leen ko fatali ak mbooleem kilifa yi nga xam mom la ko baxo andal tañu ñu bokk sëriñ Tuubaa muy ñi nga xam serigne touba mo xeexal won seen way Nuuriya ak ñi nga xamante ne bii ñoom ñëpp ah, <coughs> ñooy sëti Serigne Touba yi ndax xam ngeen ni bis bi ku ko yàgg a taxawee xam nga ne bis la boo xam ne Serigne Moustapha daf koy woote di ko ànd ak buntu kër Serigne Mabey waaye lépp nag mi ngi nekk ci loxooy sëti Serigne Touba yi ñoo koy taxawu ci biir ak ci biti saayir ak baatin ndax xam na ne Serigne Mabey ak mboolem lu aju buntu kër Serigne Mabey alali Serigne Touba la waaye Serigne bi di gën a soññ ci jàng jàngum alxuraan mi comme niñ ko daa defee ak jàngum xasaayit mi ak istifaar yi ndax dañ ciy fàttaliku jëmm yoo xam ne lañ leen di fàttaloo la ci gën mooy bernde ak jaamu yàlla ak jàng alxuraan ak xasaay kon sëriñ bi wax ne mi ngi ciy woo ñëpp di ci woo kilifa yëpp bokkal yëpp rawatina jàngalekate alxuraan yi ndax mooy soloos bis bi ak jànkate xasaayit yi di ci woo ñëpp bàyyiwut kenn waaye nag di ci gën a woo bu baax a baax ñi nga xam ne bis bi ñoom ñoo ko moom Euh, muy Serigne Mouhamadou bu Bousso mi nga xam ne moom la ñu ko tuddee mooy jëmm ju baax joo xam ne euh, kenn ku ne xam na taxawaayam ci yoon wi euh, Serigne bi di di ci gën a sàkku ñaanam ndax bis bi bisama Serigne Omar Gom mi nga xam ne nag Seydina Omar Gom moom la ko Serigne bi dara jaare ak mboolem njabootu Serigne Abdou Salaam gom gépp nga xam ne ku xam Serigne Abdou Salaam xam Serigne Mabé xam ne buntu kër yi benn rek la Serigne bi wax ne mi ngi ciy doolee sàkku seen ñaan ndax Seydina Omar mi nga xam ne mooy eh, doomi Serigne Abdou Salaam gom moom Serigne Omar moom la ko Serigne Moustapha dara jaale waaye itam eh, Serigne Mabé Fall mi nga xam ne kenn la ci kàngam yi nga xam ne ci roon kippaaru Serigne Mabé mi ñuy fàttaliku ci la ñu Euh, ci la yaroo ci la jànge sëriñ maa bee ko defal yëpp ba toqe ko euh, sëriñ Moustapha itam cëral ko ko muy dara jaal goo xam ne daf ko ko boole ak sëriñ Omar Gom mu wax ne mi ngi leen ci koy fàttali bu di ci sàkku it seen ñaan di ñaan yàlla suñu borom yëpp dinañ ci ci jàmm ak salaam ñu amee ca taw feexi sëriñ bi wasalaamaaleykum. di jële ndigal ci sëriñ Mbacke géey mi xalifaab sëñ maa bi ak sëriñ Amsatou Guèye mi nga xam ne mooy wayjuru sëriñ Moussa mii ak sëriñ Cheikh Mbacke Guèye muy rakkam ak mbooleem njaboot ak sëriñ maa bii gépp sëriñ Mbacke Guèye di wax ni bis bi nga xam ne moom lañ baaxoo def fii ci saam te sëriñ Moustapha Guèye am ci ndigal di ko def fii ci saam bis boobu dellusi na bis boobu it ni mu ko daan waxee rek mbooleem kuy xarit kuy wëllëre kuy soppe ku dib taali bi ci biir réew mi ak ci bitim réew ak mboolem dayre yi nga xam ne ñoo aju ci kër sëriñ maa bi sëriñ Mbàkke Gueye nee na mu ngi leen ci woo ngeen yeesalaat pas-pas yi ak postéef yi ak taxawaay yi ànd ko ak sëriñ Moustapha ba bis bi àgg ci jàmm mu ngi woo mbooleem cheikh yi nga xam ne ñoo aju ci daaru xudduus dañ bokk cheikh Moustapha al Karim képp koo xamante ne nii yëg nga ni sëriñ Mbàkke gi am na lenn lenn lenn lu mu jëf ak yow ci saayir ak ci baatin te nga am yéenay fay ko wala kenn ci njabooti sëriñ Mabé yi jëf ak yow lenn ci saayir ak ci baatin te nga am yéenay fay ko noo ngi lay woo ci bis bii bis bii de bisa payu la képp koo xam ne lëggéeyal nga sëriñ Mabé yi ci wéet ak ci ko sëriñ Mbàkke Géey nee na bis bii bisa payeeku la ci yow kon mi ngi woo ñëpp mi ngi woo ñu ngi woote it ci turu bàjjan yi bàjjan Faati Géey bambe yi domi serigne Mabé la di wo it ci turu njabot yi nga xamne ño aju ci mom waaye mi ngi wo bokki taari bi yep di ak assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh yéen bok julit yi yéen bokki yi ma ngi len di sooj ci bis bi ñu def ko nin ko daan defé taxaw ko nin ko daan taxaw ba mu baax ndax bis bi sunu bis la ci borom bis bi mom dañuy jëm rek waye mënuñu ko fay. ndax xeebul góor xeebul jigéen xeebul mag xeebul ndaw xeebul soxlas kenn nan ci daan jàppe maa ngi woo mbootaay yëpp maa ngi woo mbootaayu soxna Ami maa ngi woo mbootaayu soxna Binta Seck maa ngi woo mbootaayu soxna Ayda Bey maa ngi woo mbootaayu soxna Ndey Caam maa ngi woo mbootaayu soxna Yaas Njaay maa ngi woo mbootaayu soxna Jóob maa ngi woo ñëpp bàyyiwuma góor bàyyiwuma jigéen yàlla nañ ci yàlla yóbbu ñu dugg ceeg bisimilahi rahmaani rahim eggale ko alhamdulilah rabbi alamina yàlla mi nga xam ne si moo mën a defar mën a rafetal yàlla na nu jàppale kàttanal nu. ngeen kàddu yi nga xamee ni moom lañ fi bis bi nag bi ko tuddee sëriñ Modou Mamoun dara jaale ko sëriñ Omar Ngom mom sëriñ Abdou salam Ngom ñu ko dara jaale sering sëriñ Mabey Fall ñu gën koo xam ci sëriñ Tawa Fall Cheikh mi ngi ci wo kilifa yii ñuy bëgg sëriñ Modou Mamoun Mbakke moom sëriñ Abdoul Ahad di ci woo sëriñ Modou Mamoun Mbakke Daaru Salaam moom sëriñ Mbakke Assu di ci woo sëriñ Saalihu Mbakke moom sëriñ Mbakke Soxna Lo di ci woo sëriñ Abdoul Ahad Fall moom sëriñ Modou Abdoulaye Fall Ndar di ci woo sëriñ Fallou Mbacké moom sëriñ Moustahine Mbacké di ci woo sëriñ Khadim Diakhaté moom sëriñ Abdoulahi Diakhaté di ko yëgal sëriñ Khadim Bassirou Mbacké moom sëriñ Abdoul Ahad Mbacké di ko yëgal sëriñ Mamor Mbacké moom sëriñ Modou Boussa Dieng di ko yëgal sëriñ Cheikhouna Mbacké moom sëriñ Sidi moom sëriñ Abdoulaat di ko yëgal sëriñ Abdou Mbacké moom sëriñ Souhaïbou Koso di ko yëgal soxna May Diakhaté moom sëriñ Amsatou Diakhaté di ko yëgal soxna Bousso mi nga xamee ni moo jiite daaira maam jaare yi nga xam ne ñoo nekk na di ko yëgal itam soxna Binta Seck ak soxna Ami Wade ak soxna maam ba nekk fii ci Saam jiite daaira di ko yëgal Serigne moodu Diouf moom Serigne Modou Awa Balla Diouf moom sëriñ Touba Diouf di ko yëgal itam Serigne Malick Gueye mi nga xamee ni ñoo bokk lépp mi ngi nii toog ci jataay bi mbokk yi bis baa ngi noonu Serigne Moustapha di fàttali ni bis bi mi ngi doon fukki fan ci weeru baraxlu wi muy amee fii ci saamuk sëriñ Abdou Latif Mbacké ñi ciy woo góor ak jigéen mag ak ndaw bàyyiwuñu kenn di ko yëgal itam soxna maam Bousso Ahibaul Khadim bi nga xamee ni ñoo nekk Daaru Xuddos mbokk yi bis baa ngi noonu bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu góor bàyyiwuñu jigéen wu bàyyiwuñu mag bàyyiwuñu ndaw wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.